Musa mbokk yi sëriñ bi neen asalaamaaleykum wa rahmatullah cheikh mahamadul muntaxa xadimal mustafa sëriñ bi nee na ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu sa jëwriñ ji sëriñ abul baraka ak mboolem njabootuk cheikh mahamadul fadal gi yëpp nee na mboolem njabootuk cheikh mahamadul fadal gi ñëpp ñëw nañu nee waxtu wi dafa xat lool nekkoon dañuy tudd tur yëpp nee na moom itam mi ngi lay nuyu ci turu jëwriñam Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Mouhamadul Fadal ndax mi moom ak Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne moo yor kaddu kër gi ak mboolem seen rakk yépp ak seen doom yëpp ak taalibe yi ak mbokk yépp nee na bàyyiwuñu kenn nee sëriñ bi ñoo ngi lay ziar bu baax nee ci dëkk bu tedd bii soxna su tedd sii fi nekk nee na yàlla na sunu boroom yokk ay leeram te taasuñu ci barkeem. ci barkeb xadimal Mustafa nee na mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba barkeb Soxna Jaariyatullaahi ñu ñëw fi ay at yu bëree bëri bëri bëri te fekk la fi nee na ànd ak wér ak gudd fan lool nee na xam nañu ne yow li nga bëgg te mu yitteel la nee na jëmbi sëriñ Touba rek moo la yitteel liggéeyal Serigne Touba rek moo la yitteel nee daray àdduna soxalu la li nga bëgg nag. nee na ñoom xam nañu ko njabootu Cheikh faadal gi xam nañu ko njabootu sëriñ Touba gi yëpp itam xam nañu ko nee mbokki jullit yëpp xam nañu ko taalibe yëpp xam nañu ko nee na xam ba tax na li ñu fas yéene moo di laxasaayu ànd ak yow liggéeyal sëriñ Touba ànd ko ak yow nee na ndax loolu rek mooy dalal seen xel ñoom nee na nee na ñëpp ñëw nañu teew ci sa kanam tey nee na na nga ñaanal ñëpp suñu borom bàyyi la fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg nee nee na tànk yi nag nee na tànki taalibe la tànki mbégte la nee loolu rek moo waral yu ñëw tey ngir ziar si la nee na ñoom de amuñu lu dul yow yaa fi sëriñ tuubaa ci kaw suuf nee na amuñu kenn ku ñu la gënal ci kaw suuf nee na am na loo xam ne nag nee na mi ngi koy wax mbokki taalibe mi nee na taalibe yi Cheikh Mouhamadul Mountakha mii mooy sëriñ Touba sëriñ Touba. neena kenn waru ko yeb ne te gis nañu ne taxaway bi des na dañ ko yeb neena ta te jaadul neena amna ku bax ku ne ko Cheikh Mamadou Fadal neena neena yàlla nañu yàlla musal ci ak minel ndax lo min lu ne yab ko ta lo yab do ci jariñu neena mu wax Cheikh Mamadou Fadal ne ko nee na xam nga yab sa kilifa lu muy jura ñu ne ko Mbàkke ñun de xamuñu ko de nee nek fa ba jóge fa rek daal faxasu nee ta lolu musiba la kenn bëgg ko nee sëriñ bii du wax kenn dara ñun ñi ñoo wara a am fullay am fuñu ko tek def ko kilifa diko ko ci liggéey bi ta bañ ko bari na lool ta lolu appare yi ñuy wax fuñu tollu di photo moy sëriñ ci ko suuf Nenek amna am kër ne bu fa demee appare ya ngay yor dañ koy nangu ko koy nangu kilifam lay sutural diko dimbali ta ñooñu amuñu solo Nenek ki moy Serigne Touba tay nee na nañu and ak mom ngir Serigne Touba deglu ndigalam baye ay terem Serigne bi na nga ñaanul nak Mbàkke nee dañu matul rek nee rek rek yi bari na lol waaye nga jéggal ñu rek te xam ni doomu aadama rek moo matul waaye la ca kanam fas fas nañu yéene li weesu nañ koy rëccu bokki taalibe yi sëriñ bi amuñu ludul moom nee na moom itam amul ludul ñun nañu xam bu baax a baax cër bi cër bi rëy na lool cër bi suñu borom moo ñu ko faggul muy sëriñ Touba tey jii mooy sëriñ Touba ci kaw suuf nee na nañ ko toppatoo di ko fonk di ko wormaal Cheikh Mamadou Fadal daan wax ni nee na ñett dañoo nuróo te bokkuñu ragal wormaal ak wattandiku ne na ragal yàlla rek moo ko jagoo wormaal nit ku baax nee boo nekkee ci àdduna wormaal ko bu fi nekkatul wormaal ko nee na wattandiku nag ku sàggan kon nag sëriñ bii rikkuwaay nañu ko wormaal ngir sëriñ Touba te bàyyi pomi nee ëpp na lool jaaduwul nee na bu ñu gisee jàmbur yii di ñëw di ñëw ci ak si sëriñ bii ñëw di ko ziyaare si fekk fekk ñu ñu ñu yàpp ko nee na loolu du du ci sëriñ bi de ci ñun ñi rek la te te te boobaa daan daañu ñu ñàpp te sëriñ bi kenn waru ko yàpp jaar ci ñun nee dafa dégg ku baax ku wax ni nee na fas na yéene yoonu sëriñ Touba wii kenn du ko yàpp jaare ko ci moom nee loolu rek mooy dëgg. nee nañu and ak serigne bi liggéeyal serigne Touba te bayyi pomi serigne bi ñoo ngi jégalu bu baax ci kàddu yi waxtu yi da gatt lool waye ñi ngi ñaan ci barkeb serigne Touba bu nagari déwénee ay déwéni déwéni déwéni déwén yu bëree bëree bëri ñu ñëw fekk la fi te lepp lo bëgg liggéeyal serigne Touba rek nga def ko ni nga bëgg mo ngi jéggal bu baaxa baax né na waxtu yi dafa gatt lool asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi sëriñ bi nee alamin nee na mi ngi fas yéene gën a yeesal ak cant rek nee di sant suñu boroom mi ñu boole ak sëriñ bi di sant sëriñ bi muy suñu lépp tey ak ëllëg nee di sant sangam subaax sii muy waa kër ak Cheikh Mouhamadul Fadal sëriñ bi nee na mi ngi am mbégte mu rëy rëy rëy di am xel mu dal nee di am yaakaar ju dolli ko ju rëy rëy ngir seen jëmm yi rek nee na Pastef bi nga xam ne moom la yàlla dogal ci yéen muy seen tawféex mu di ak taalibe nee na loolu moom teel na koo yëg nee am na ci taw féex kon seen jiigo yii jóge Touba ba fii nee na dëgg la ñoom xam nañu li ñu def xam nañu li fi nekk waaye moom itam waaye am na taw féex ci fekk gii ngeen di ko fi fekk nee na mu nekkal leen fi nee bi ñuy ñëwee nee na yóbbal wu rëy rëy lañu koy indil nee na dañu koy yeesalal léppam neena lépp lépp itam di ak taalibe nee dañu koy yeesal bu baax a baax a baax nee na loolu itam mu amel leen ci cant gu rëy boo xam ne bii yemul fenn fu dul fa borom fa kanamu borom liggéey bi nee na seen cant ak moom foofu rek la jëm alhamdulilah rabbil alamin nee na sant na bu baax a baax a xolam sedd na bu baax baax nee na dal na bu baax baax nee na yaakaaram dolliku na bu baax baax nee na fita itam gën naa rëy nee na lépp nag nee na ko ko indil nee na ko bu baax baax nee na mënu leen a sant waaye nag nee da koy jëm rek nee na mi ngi leen di sant fa ca kanamu borom liggéey bi nee di ñaan ci barke borom liggéey bi suñu borom gën leen a sàmm gën leen fee bàyyi yàggal leen fi lool te di leen tëbb kattan gu ànd ak wér nee na loolu rek mooy seenu ñaan ci moom. nee na ak taalibe rek moo am solo ci ñun nee na yàgg na koo wax nee dafa wax ni nee dafa waxoon bu yàgg ne njabootuk Serigne Touba na bu nee njabootuk Serigne Touba nag taalibe yëpp dugg nañu. nee na dafa wax ne bu ñu àggee ci di jéggaani ji ak taalibe kër Cheikh Mouhamadul Fadal la ñuy ñëw nee na loolu ba ma ko waxee yàgg na. nee ci fu wóor la ko tek nee yaqin ju wér la ci am nee kon nak lolu bu amé tawfiq nee yalla def mu nek nifek ñu fekk si ko fi ak katan gi ñu fi indalé mu di ak talibé nee ñu jox ko cër bi ñu ko jox nee na loolu nee na rëy na ci moom lool waaye nag soññ na ko lool ci sëriñ bi te loolu rek mooy li ci am solo nee na xolom sedd na bu baax nee na mi ngi sant bu baax di leen gërëm te jotaay bii nee na mi ngi ciy gën a yeesal ak jaayanteem ak sëriñ bi di gën a feddali ak laxasaayam fas yéene koo ànd ak ñoom rek ci biir ak ci biti nee na fas yéene sax dakk nag ci liggéeyal Serigne Touba nee na sax dakk ci jaamu yàlla mooy sax dakk ci liggéeyal Serigne Touba nee na day wax ci ak waxi taalibeem nee dañuy sax dakk ci liggéeyal ci jaamu yàlla dañuy sax dakk ci jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi sax dakk ci liggéeyal Serigne bi jaamoo ko yàlla nee na loolu waxi murit la nee na mooy dëgg ci moom. nee na jërë ngeen jëf Mbacke nee na xamul nan la leen sante waaye nangeen xam ne mi ngi leen di bëgg bu baax a baax di ko seeral boroom liggéey bi mi ngi leen di bëgg bu baax a baax di leen ñaanal bu baax a baax ci baaxu boroom liggéey bi ak ngëneelam ak darajaam yàlla sàmm leen gën leen a sàmm te aar leen te bàyyi leen fi lu yàgg a yàgg fanu wu gudd gudd gudd waxtu wu nekk suñ borom di len tëbb ak wer gu and ak katan ngir ngeen ngir ngeen ngir ngeen gëna mëna sax ci sen cër bu lay bii nee na ak talibé mudik talibé kon nak jere ngeen jëf tawarkal la jërëjëf mbag nee na léppam ak cant la assalamu salaamaaleykum wa rahmatullah